ñu ngi ci jamonoy nawet nit ñaa ngi ñaan taw di ñaan ndox te ndox mi nit ñi moomuñu ko gàncax gee ko moom gàncax gi jur gee ko moom bu ñu lekkee am meew yàlla industrialisé ko muy une industrie laitière buy dox ci kaw suuf si di déplacé wu yàlla di ci liggéey mu kecil ci ñax mi nga ratt mu génnee lu weex tàll lu wuuteeg ñax mi te la mu fekk ca biir ba benn melokaan wala la cay xet topp ko yàpp wa rafet lool der ba rafet ñu rendi te la jaar ca baat ba bu rëccoon jaar ci sa nga paaka bi kon budul woon nga fekk luy dund te ngeen bokk boroom te bokku leen ndey baay te sa ruux ak ruuxam yàlla mënoon koo lënkale ba boo rendee ànd ak moom dem boo fekkee ku mel noonu ci kaw suuf nga jëfandikoo ko ci ndigalal yàlla boo ca noppee war nga xam ne yowit it yàllaa la moom maam Maodo ci anam boobu la ñuy jàngalee yàlla anam boobu nag ci lañu ñu fàkkalee tool boo xam ni kenn ku ci nekk boo ci nattee sa bopp ki nga ci fekk di nga yëg ni moo la gën te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam